rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasulillah gannaaw santal borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte kontaan bu baax leen ci teewaay bi ngeen teew ñu bëggoon fee fàttali dal di jëm ci suñu wàllu diine tey ñu amoon suñu benn mbokk muy Saz Seydou Ly moom moo ñu war a defal waxtaan bi tey waxtaan bi mu ngi jëmoon ci kasbul xalaal maanaam ci alal bu lew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 tomb yi nekk sunu kanam ñu fas yére cee def waxtaan wi mooy alkasbul kasbu asbaabuhu wa adrooru mooy fàggulu araam nit góorgóorlu ci dajale alal joo xam ne alal ji dafa xaram góorgóorlu boobu waa ji ju góorgóorlu ba dajale alal ju aram jooju lan mooy sabab yi bu ñu xamee sabab yi ba pare waajooju alal jooju mu dajale yan lor la ciy jëlee loolu mbokk yi ci gàttal moo war a nekk tey sunu tomb waxtaan ba ca jiitu ci muqaddima bi nuy naan yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp ñi wax ak ñi dégg yàlla yàlla def ci ñun yërmande sàmmun ñu yëg ne anna talabul xalaal waajib ala muslim sàkku alal ju dagan dafa war farata ci képp kuy jullit góor nga walla jigéen mag nga walla ndaw nga sàkku alal ju dagan dafa war ci yow ñëw na ci sharia ci diina ji ñuy dund ay textes yu baree bari ci alquran ci sunna yuy soññ ab jullit mu dox jëm ci ut alal ju dagan am am bu dagan mu fàggu ko waaye ànd ak bépp moyen ak jubluwaayam mu fexe li muy dajale li muy lekk li muy faggu na nekk lu yàlla gërëm na nekk lu dëppoo ak maqasid ak asharia xam ngeen ne ut alal l'islam def ko utal ay yeewin ay texte yu ko tënk wax ne ab jullit nii lay utee alal bu buggee dund dund bu dagan nii la koy utee du dagan ci kenn nga jël tey texte yi waa Sénégal di dund mooy lan moyen boo def pour al alal rek baax na déedéet ab julit moom dund bi muy dund alal ji muy fàggu dafa am yeewin bu ko islaam yeewu tënk bu ko islaam tënk nekkul ne lu la neex nga lekk déedéet waaye nekkul ne alal joo gis rek daal di dajale raatale dugal sa biir kër mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala sunu boroom ma nga wax ca suratul baqara aya 168 mu ne yaa ayuha nnaas kulu mimma fi l ardi xalaalan tayiba wala tattabi'u xutuwaati shaytaan innahu lakum aduwwun mubin foofu sunu borom ñëpp la woo yaa ayuha nnaas képp kuy xeetu doomu aadama foofu yàlla waxul sax ak jullit yi rek waaye ñëpp ñuy dukkat ci kaw suuf nekk ay doomi aadama nekk ay nit ñoom la yàlla waxal yaa ayyuhan naas mu ne kulu mimma fil ard lekk leen lépp loo xam ne mu ngi ci suuf si waaye xalaalan tayyiban lu teey te dagan ndeke kon dund bi ñuy dund kaw suuf si yàllaa ñu fi wàcce pour nu war a dund moo tax mu sant ñu ñu jëfandikoo lépp lu nekk ci kaw suuf waaye nag xoolal ni muy segge moom yàlla tabaraka wa taala ni muy segge mbir yi mu ne lan xalaalan tayiba na ngeen lekk lu teey te dagan xalaalan loo xam ne lew na leen dong waaye tayiba mu daal tey teey sunu borom xam na moo tax mu tëj aaya bi wala tattabiu xutuwaati shaytaan bu leen topp ñalli shaytaane yoon yi mooy yoon yi ñuy jaar pour ut alal tey booy xool adduna bi ñi fi ëpp alal ci yoon yu araam yooyu lañ jaar pour dajale alal te yoon yooyu mooy yoonu seytaan moo tax yàlla ne ñu wala tattabiu xutuwaati seytaan yi xoolal tey ñu nekk ay làmb ay mbër pour lan pour ut alal yoonu seytaane la ñu nekk ay footballeur xoolal tey ki gën a riche ci àdduna bi wala ki nga xam ne tey moo ëpp salaire ci àdduna ci football lañ koy fay yoonu seytaane la salon coiffure yoonu seytaane la man ki naa ah xoolal yàlla moo tax mu ne wala tattabiu xudwaati seytaan bu leen topp ñalli seytaane yi ut ay yoon yoo xamante ne da ngeen fay ut pour dajale alal dafa ne nag dagan na fekk dara daganu ci mais lu doy waar tey mooy Sénégal nit ñi moom seen yoon nekk ci ne mbir mi baax na wala baaxul amal rek amal rek boo fi amee léegi même boo nekkee jaaykatu yamba wala trafiquant drogue chaque vendredi nga bokkal imam 1000 francs yow ku baax nga ku wax imam mu ne waa ji ku baax la waa ji mbaay seede ne ku baax la seen yoon nekk ci kenn du xalaat 1000 francs yooyu fu mu jógee kenn du xalaat am am boobu mais déedéet li ñuy xalaat mooy bokkal gim leen di bokkal mu ne innahu lakum aduwwum mubin seytaane yoon yooyu mu leen di jaaral li tax ndax seen noon bu biir la sunu borom waxaat ci suratu anfal 69 mu ne fa kulu mimma ganimtum xalalan tayiba wattaqu llah inna allaha gafuru rahim lekk leen ci li nga xam ne yéen ko màng yéen ko liggéey waaye na ngeen ragal yàlla démbu lislaam jigéen bu jëkkëram daan xëy boroom këram di génn kër gi ndaw si day jàpp ci loxo bi ñëw ba ci bunt kër gi ne ko nijaay mu ne ah mu ne ko diw ah dangay ngay liggéey mu ne waaw mu ne boo demee nga ragal yàlla ci li ngay liggéey ndax nun mun nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara kon lépp looy indi ci kër gi na dagan démb jigéen ñi noonu lañ daan gunge seen kër yi seen borom kër yi tey sa soxna danaan la bu fekkee da ngay wàcc doo fi indiwul dara danga ma ko xamal léegi léegi man ma xam lu may def waaye démb lislaam jigéen ñi bu ñuy gunge seen boroom kër yi dañ leen doon wax ragal leen yàlla ci ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara kon kër gi loo fii indi na ragan mbokk yi sunu boroom nee na jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ca suratu nahl aya 114 fa kulu mimma razaqakumullah halalan tayiba washkuru nicmatallahi in kuntum iyahu taabudun lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal lu teey te dagan <laughs> gis nga bu yàlla waxul woon xalaalan tayiba mu ne fa kulu mimma razaqakumullah lekk leen rek leen yàlla li wërsëgal ni day for kalpe ubbi gis ci xaalis gis ci carte d'identité gis ci numéro téléphone mu ne sax photo bi gis dëkkandoom la mu ne ah li kat yàlla ma ko wërsëgal waaye alhamdulilah ba ca yàlla tegee xalaalan tayiba lu teey te dagan bu yàlla wërsëgalee nag est ce que dagan na est ce kon moo moo ko woowal borom mbir mi jokkool ak boroom woo ko mu ñëw jël si alalam bul ko lekk parce que xam nga ne moo moo ko waskuru ni'mat allah sant leen xéewal yi leen yàlla defal te wa ma bikum min ni'ma fa min allah xéewal ngeen yor amul kenn fu mu bàyyeekoo ku dul yàlla de ngeen dégg diw moo neenal ceeb diw moo tooyal lii diw diw diw diw diw moomu dara la fi defut bi yàlla di bind asamaan fekkewu bi ko yàlla di bind yëgu ko bi ko yàlla di rey mënu ci dara ëllëg yowmal qiyaam bu ko yàlla di dekkil dara la mënut tus ceeb bi yàllaa ko moom moom moom suuf si moom moom taw bi moo ko niinal kenn niinalu ko moom soo ko lekkee mu rees fa bi bikum min ni'ma fa min allah bépp xéewal bu ngeen am gis nga yàlla baat boobu da ko def nakira fa bi bikum min ni'ma mu bàyyi ko noon ci ñun sunu gàtt xel dañ naan ni'ma mooy alal xaalis moo tax boo xëyee suba ñu ne la ça nga ne non ça va pas sénégalaisement quoi comme ça quoi waaye town dafa dëgër yëpp a ngi nekk ak dara bougé wul quoi ñun ñëpp loolu la ñuy def koo fi ne ça va mu ne sénégalaisement doxul dara doxul pourtant ak a dox li nga yeewoo bët yaa ngi gis nga ni doxul nopp yaa ngi dégg doxul yaa ngi noyyi yaa ngi wax tànk yaa ngi joxe loxo yi dara méttiwu la kon kay mu ngi dox wala bi nga déggee ba pare est-ce dañ laa fayu facture bu doon ngoon la nga suba nga xëy nga dem doxi ba ngoon wala nga war a tëdd bi nga ñëwee war a tëdd am malaaka yëkkati la nga toog ne la looy waaja dem nga ne damay tëdd mu ne la da war a goo tëdd heure bi lu tax ah tey li nga doo dox doo fay facture bi ngay lijjanti loolu ñaata la kii yor nopp yi ñëw ne la li nga yendoo dégg da ngay am ah. ki yor bët yi ñëw ne la li nga yendoo xool da fay ki yor gémmi ngi ñëw ne li nga yendoo wax da ngay fay kon nu ñuy def mbokk yi xool leen xéewal googu yëpp yàlla defal ñu fama bikum min ni'ma fa min allah benn borom alal multimilliardaire saoudien su soxlaa dara day bës bouton lépp ñaar fukki nit ñooy taxaw ci kanamam mu wax li mu bëgg ñu rek rek ci lu muy lekk lu muy naan lu muy sol lu muy war ma ne kullu ma nurid muhayya indana lu mu soxla rek day bës bouton ñëpp ñëw taxaw ñu rek la mu xëy bëgg dem wanag am na 80 ans. mu bëgg a tuur ndox mënul tuur ndox bëgg a saw comme ngeen dégg ko mu bës bouton bi ñu ñëw mooy leen dama yëg ne dama yëg mettit mënuma dem wanag ñu yóbbu ko ci hôpital yi gën a cher ci àddina bi ay seconde yu ndaw docteurs yi rek la affaire bi comme doom yi yëg nañ problème bi bi doom yi ñëwee ci hôpital bi di ko seet si fekk docteurs yi wër ko ñaari minute docteur yi ne leen c'est c'est léegi alhamdulilah affaire bi normal na xale yi génne seen i chèque di defal docteur yi ay chèque di leen may ndax kontaan parce que sauvé nañ seen papa mu xool leen gis xale yi ak docteur yi ni ñu nekkee di ree moom mu jooy bi mu jooyee doom yi xool ko gis ko muy jooy ñu daw ne ko affaire dafa ñëwaat ne déedéet ñu ne ah looy jooy papa mu ne damaa jaaxle rek ñu ne ko lan moo la jaaxal mu ne docteur yi lañ lañ lan lañ def ba ngeen leen di may xaalis ñu ne ko papa docteur yi ñoo la faj dañoo kontaan ci ñoom bi ah, biñ leen ko waxee dañoo bàyyi seen liggéey ñoom ñëpp daw ñëw. mu ne pourtant juróom-ñetti fukki yàlla mu may may maa ngi dem woon ak kenn santul yàlla tey docteur yi defal ma benn fan rek ngeen sant docteur yi. ñun ñu toog fii ñaata at ñuy dem wa nag ku sant yàlla ci loolu ñaata at ñi dégg ku ci sant yàlla ñaata ñuy gis ku ci sant yàlla ñaata at nga tiim boolub ceeb lekk ba suur naan ndox ku ci sant yàlla pourtant loolu nii dañu ne du ni'ma ma da yàlla mu ne wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha su ngeen doon lim xéewal yi leen yàlla defal mun leen koo wàññi da ngeen di sonn mais mun leen ko waaw kon lekk leen li leen yàlla wërsëgal la ca dagante te ngeen sant ko moom yàlla nit day sant yàlla jullit dafa war a tàmmal boppam sant yàlla waaye la yàlla teg cëtt bu muy tëj aaya bi mooy in kuntum iyaahu taabudun su fekkee moom moom kot moom kenn iyaahu baatu iya fu mu nekk day fekk na yàlla kese la wala ngeen gis ko ca fatiha mu nekk iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in yàlla rek moo ko moom fii moo tax mu ne in kuntum iyaahu moom dong taabudun dañu war a jaamu amuñ jaamu keneen moom moo ko moom mu ne islaam tere na anil kasbil haram ut alal ju haram islaam def ko tere complètement lu tax li annahu suum wa bala musiba la kër bu ñuy lekk lu haram nit buy lekk lu haram état buy lekk lu haram société buy lekk lu haram ñooñu musiba dal na leen kuy lekk lu araam doo taalal yàlla sa loxo ba yàlla may la doo jaamu yàlla ba yàlla nangu ko lu tax innama yataqabbalu llah min almuttaqin suum wa balaa alal ju araam musiba la balaa kan ala saahibihi ci boroomam lu tax ndax danañ la càmbar yowmal qiyaam dërëm bu nekk danañ la càmbar fistin bi foo ko jëlee suñ paree lijjanti loolu ñu ne foo ko dugal kon nit ki war na bàyyi xel bu baax a baax a baax ci alal ji muy faag fa bi sababihi yaqsul qalb alal ju araam nit bu koy dundee xolam day wow wa fi u nuurul iman day fay leeru ngam yàlla ci xolu nit nit kuy dundee alal ju araam day tax yàlla tabaraka wa taala mere ko su ñaanee yàlla du ko nangu xoolal yii yëpp ñu wax ban moo ci baax sooy lekk alal ju araam boo ñaanee yàlla du ko nangu te yow yàlla dalaa mere yàlla dafa fay leeru ngëm yàlla ci soxol soxol day wow foo nekk yaa ngi ci balaa yaa ngi ci musiba fekkoon ne yi kese la rek nit ki war naa daw bu baax a baax a baax a baax lekk alal ju aram waaye alal ju araam jooju du yem ci këru waa ji day tasaaroo ci société bi ndax waa ji dafa jokkoog waa société bi lu araam loolu muy lekk loolu lay tasaare encore ci biir société bi lan lay jur mooy lu bon loolu bu tasaaroo ci société bi jikko yi dañuy yàqu ndax alal ju araam jooju sàcc dafay bëri agressé day bëri wuruj day bëri riba day bëri loolu ngeen naan riche mooy neexalaate ixtikaar économique denc dara dégg ñu ne gaz manqué na nga jël téeméeri gaz denc ko ci sa lal ba prix bi yokk nga génne gis nga alal ju yooyu lay jur ci société day sa sàcc bari ndax yow li nga yor moomoo ko yi jàmbur nga yor comme alal ji dafa dañ ko denc sàcc yi dañuy bari dañuy nit ñi duñu am lu ñu lekk beneen mooy agression day bëri gis ngeen tey ger ger day bëri ger foo tourné tey nit ñi dañuy ger koo gis dañ leen di ger dañuy ger di ger kilifa diine yi waaw kenn du wax mu ngoog beneen bi mooy di di natt sax di wàññi balance yi lekk alalu jërim lekk alalu nit ñi bil baatil tasaaroo day bëri nit ñi nekk ay góor jigéen jigéen ñi di jaay seen bopp ndax lan pour am alal waaw mu nga mbokki jullit yi alal ju araam lii lay jur ci société yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal nañu bisa ngi ñëw ci àdduna ay nit ñoo ngi ñëw sa yaati ala naas zaman yatahaawaluna fihi an qadiyati kasbil halal jamono ngi ñëw nit ñi danañ réere fàggu alal gu dagan ku nekk rek amul problème awma lu ma dépassé oo yàlla ma ko may naa yóbbu sama kër ku nekk nu may def ba am terrain ku nekk nu may def ba am oto ku nekk nu may def ku nekk nu may def sa yoon ci dagan na wala daganut ngay raja rajaxe rek di yóbbu yonent bi nee na wala yudaqiquun wala fi makasibihim nit ñi duñu ne tekk di xool ci li ñuy ut li ñuy am waaw man kii may liggéey lan lay liggéey seen yoon nekku ci kër gi may tabax mbaa du ab baar la seen yoon nekku naa tabax ba pare rek nañ ma jox sama ma dem kii may jëfandil moom alalam ji dafa dagan wala dafa araam yow sa yoon nekk ci yow na pare rek ba mu compter sa liquide xaalis jox la nga dem defi li ngay def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yaati ala nnaas zaman laa yubaali lmar ma axada minhu a halal aw min haram axrajahu lbuxaari fi lbuyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngi ñëw mu ñaa ngi nii jamono ngi ñëw ci ñoom kenn ku nekk ñoom doo faale foo jël alal dagan na araam na ngay jël rek mu ne doo toppatoo doo lijjanti ku la jox nga jël ku la fay nga lekk looy xintawoo sama kër daal bu fa dépasse manqué mu ne lenn ci nit lu ñu lekk lu ñu naan lu ñu sol fu ñu dëkk loo rek seen yoon ci araam na wala dagan na borom bi tabaraka wa taala qul araaytum ma anzala allahu lakum min rizq fa jaaltum minhu haraman wa halalan qul allahu adina lakum am ala allahi taftarun yi wax lii yàlla wàcce ci ay wërsëg ngeen jël saam lii dagan na lii araam na ndax yàlla moo leen dox loolu ndool la dangeen di fenal yàlla da koy duural di ko waxal lum waxul ne yàlla wax li te waxu ko waaw tey mbokk yi bu ñuy lijjanti suñu société di wax ne dañu war a xool alal bu dagan bu daganut daanaka nun nëpp dañuy dem ba dootuñu génn di suñu kër yi ndax lu araam nu mu tasaaroo lu yonent bi ne lu araam day tasaaroo ba yow boo ci lekkulit nga lekk ci pënd bi yow boo ci lekkul boo ko defulit di nga lekk ci poussière bi nooy lekk ci poussière bi da nekk ci jàkka ji di julli ñu fekkee la faak beñe boo xamante ne lu araam lañ ko defee ak jus boo xam ne lu araam lañ ko defee ak kanet boo xam ne lu araam lañ ko jënde ak guro goo xam ne lu araam la wala sëy boobu sax lu araam la nga ñu jox la nga yóbbu sa danaan beñe beek a neex kanet bi kanet bu bees la mu ngi doog a génn <laughs> mu ngoog ibnu abbas nee na kaana alul jahila yaakuluuna asya wa yatrukuuna asya waaw loolu nag lan la woon taqadduran fa baasa allahu taala nabiya wa anzala kitaba wa ahalla halala wa harrama harama fama ahalla fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afuwun watala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ila akhiril aya akhrajahu abu dawud ibn abbas ne jamono bu njëkk ba cedd yi mooy jaahiliya dan daan lekk li bàyyi lii yàlla yónni yonent yonent ñu wàcc yàlla jox ko téere yonent leeral leen ne lii moo dagan lii araam la yonent bi daganoon daganaloon looloo dagan la yonent bi araamaloon loolo araam la yàlla noppi nag leeralu ko la yonent bi noppi leeralu ko lool nag ndeysaan ak ngigël ak ngigël ak bëgg la gu ñu yàlla tabaraka wa taala bëgg mbokk yi walil kasbil xaraami asbaab wa adrar nazkuru minha li ma doon wax sànq ba léegi mu xaddima la woon ñoo ngi doog ñëw nag ci tomb waxtaan bi loolu danañ ko xaaj ñaari xaaj danañ wax asbaab bi ci ay point suñu paree ñu jël adrar yi sabab yi nga xam ne fàggu alal ju araam dina ko def lu njëkk mooy adamul xawf wal xayaa min allah adamul xawf wal xayaa min allah kii wut alal ju araam ki koy dunde ki koy lekk ki ci liggéey xam nga alal jooju muy ut lan la koy jural mooy ñàkk ragal yàlla ak ñàkk a rus yàlla loolu koy jural dootul fuuglu ak yàlla Abdullah ibnu Omar ba mu fekkee sàmmkat bi ci àll bi muy seetlu sàmmkat bi mu ne ko reyal ci xar gi benn jox ñu lekk dañoo xiif mu ne ko moom ma ko dañ ma koy sàmmaloo rek bu weer dee ñu fay ma mu ne boo demee nga ni borom tiliyee ko lekk sàmmkat bi daa di ne Abdullah ibnu Omar ayna Allah ana yàlla Abdoulaye Umar tey sikkim bi di yuxu naan qaala ra'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla allahu akbar ñooñu da nga leen doon wax yàlla rek lépp daal di réglé wu tout lépp police ñëw na réglé wul gendarmerie ñëw na réglé na contrôle économique ñëw na réglé na douane ñëw na lépp loi yëpp a ngi fi du réglé wu lu tax parce que yàlla lañ génne ci dund gi moo tax dund gi du jag yàlla bi mu bëggee àdduna baax dafa indi islam pour àdduna baax nit ñi daar di ñëw dindi l'islam moo tax àdduna bi du jag lu leen neex nag na ngeen dund ku leen neex topp leen ku leen neex bëgg leen ku leen neex roy leen wallahi bu ngeen dund l'islam dëkk bi du baax président bu leen neex ngeen folli nag fol leen di folli rek da ngeen doon Abdou baaxul ngeen yónni ko ba ci kaw dóot suuf indi Ablaye Wade ndax baax na yéen lay laaj baaxul ngeen ni yéen Abdoulaye Wade ba ci kaw ne ko rul indi Macky ndax baax na ba subay du baax kenn doon ngeen fii teg dëkk bi baax mooy ki fii teg li yàlla ak bi wax ndax kooku mooy ragal yàlla ci seen milliards yi kookoy ragal yàlla ci seen pétrole bi kookoy ragal yàlla ci seen zircon bi kookoy ragal yàlla ci kookoy ragal yàlla ci njàng mi kookoy ragal yàlla ci santé bi kookoy ragal yàlla ci jigéen ñi kookoy ragal yàlla ci xale yi kookoy ragal yàlla ci góor ñi ndeysaan Umar ibn Abdul Aziz nekkee président nekk amirul muminin dafa fal benn ministre am ngeen ministre bi luy liggéeyam ah amul bureau de moom ci ginnaaw président lay toog fii président toog ci kanam mu toog ci ginnaaw su toogee ba ci àgg rek mu dóor ko fii xëcc su geestoo mu ne ragalal yàlla de na ragal yàlla ci li ngay def ndeysaan xam nga loolu lu mu lay jural kooku ministre boobu loolu lay doon liggéey mooy ministre boo xam ne li mu yor mooy mbirum ragalal yàlla fii tey kan la ñuy wax ragalal yàlla ban saal ngay dugg fekk borom saal bi toog nga ne ko yow damaa ñëw pour nga ragal yàlla am naa benn parent d'élève daa xëy rek song si ma école attaqué ma oustaz oustaz tey dañuy xuloo comme ba jàmm la mu ne noo sama doom bi ma xëy rek di wax ak moom rek mu ne ma papa ragalal yàlla non loolu loolu loolu loolu war leen ko jàngal xale yi loolu dafa ëpp xale yi war gu ñu wax loolu non niveau boobu ah oustaz xale jardin jardin di wax ragalal yàlla ma ne ko loolu de waxoon nañ ko yonent bi ya ayyuhan nabi ah ko ittaqillah waxoon nañ ko ku la gën mooy ne ko daf laa soññ rek waxu la dara non non non non il faut oustaz ngeen def ndànk non non xale yi xale ah, def ndànk xale bi dañ koy ragaloo léegi yàlla pour bu màggee mu war a xam ne dafa war a ragal yàlla moo tax ñu leen di wax ragal leen yàlla allahu akbar ragalal yàlla biñ nekkee alfala ndeysaan amoon na benn oustaz bu ñu doon wax oustaz tawhid Ahmad Sow baat boobu rek moo doon nekk ci gémmiñam mu ne ragalal yàlla axi ragalal yàlla waaw baat boobu tey moom lañ fi jëlee mën a dëkk bi jàkk du jàkk dañuy sonal suñu bopp bu yeboo ngeen def lu leen neex façon lu nekk organiser leen Sénégal gi du jàkk lu da ngeen koo delloo yàlla ak yonentam adamul xawf wal xayaa min allah ragal yàlla day tax société jàkk kenn du lekk àqu kenn di fuuglu yàlla foo nekk nga yëg ne allahuma yi yàlla nga ànd ak man du ma lekk alalu kenn soo koree portable jàmbur delloo boo koree kalpe delloo coo delloo looy wax da ngay xam looy wax looy ay fii jàkk sax ngay dem jàkk jàkk nga teg sa daal gaay ne ko tiw ñan ñoo ko yóbbu ñi doon julli si ana yàlla bi armeel ngay dem armeel ñu na tif sa portable armeel ay armeel laa wax armeel ngay dem di suuli nit ay dóor sa kalpe taw yóbbu wala ñu dóor sa dóor sa portable léegi ana ragal yàlla bi ci ay armeel laa ay armeel waa ji dee jékki-jékki eh la na sam ci ay armeel ana ragal yàlla bi ana alal bu dagan bi ana ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na istahyu min allah haqqa alhaya qaala qulna ya rasul allah inna nastahi walhamdulillah qaala laysa zaak ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla nga la waay rus leen yàlla rus leen yàlla rus leen yàlla nit day rus yàlla waaw ah, mais tëju sa néeg rek sama néeg tëju na waa ji doon bugg a njaaloog ndaw si mu tëjee bunt bi tëj fenêtre bi wàcce rido yi simmeeku ndaw si ne ko am na bunt bu des de mu ne man bunt bu des fii ci biir kër gi tëj naa bunt kër gi tëj naa bunt néeg bi tëj naa fenêtre bi nga naan am na bu des mu ne ko am na bu des mu ne ko ban mu ne ko bunt bi jaar sama digganteeg yow ak sama boroom tëj ko ba yàlla duñ gis waa ji daal di solaat ay yéreem ubbi bunt bi ne ko jërëjëf li ma la yëpp jëlal fan la ñuy jëlatee xale yu góor yu mel noonu loolu sax tey boo ko bu ko ab jigéen defoon nga yeew naan wu démb kay ne dañ naan la wóoya dootoo tekki yow yàqu nga pare nga yooyu lañ lay wax yooyu lañ lay may yow pare yow dootoo tekki yow defal la xéewal loolu xéewal la ak ñun ñoo ñàkk dégg xéewal yow loolu di musiba loo xam ne ëllëg ci biir jahannama nga jëm allahu akbar bànneex boo xam ne ay seconde la nga dana nekk éternellement ci biir safara ëllëg yowmal qiyaam nga ne loolu xéewal la mbokki jullit yi yonent bi nee rus leen yàlla dëgg-dëgg rus sahaaba yi ne ah kay ñun rus nañ yàlla de ñoo ngi sant suñu boroom yonent bi ne nekku lool de ñu ne ko kon lan la mu ne an tahfaza rasa wa ma waa na ngeen garder bopp bi ak la bopp bi ëmb ana bopp ana bopp ku may woon bopp li mooy bopp lan la bopp ëmb lan moo nekk ci bopp wax ma ko par benn nopp gardel nopp gardel nopp ba bu mu déglu araam lu ci tegu gardeel bët loolu mooy rus yàlla xam nga rus yàlla mooy sama nopp bi du déglu lu bon rus yàlla mooy sama bëri du xool lu bon rus yàlla mooy sama gémmiñ du wax lu bon waaye tey ci sunu dund bu nuy dund mbokk yi est-ce que dëgg-dëgg nu ngi rus yàlla pourtant tey boo toogoon ak benn kilifa nga rus ko soo naroon wax lu bon ah waaw nit ki ngay rus ak yàlla kan moo ci gën a yey ah allahu akbar Ousmane ibnu Affan dafa rusoon yàlla ba buy tëdd day fay bi biir néegam la day fay bi dugg ci biir mbàjj bi doog a simmeeku ci biir mbàjj bi lay simmeeku suñ ko ne yi mu ne man dama rus yàlla du ma summeeku yàlla di jàkkaarloog man <laughs> xoolal ñun tey il faut nekk ñu dégg suñu diine ñu xam lan la ñuy dund garde bopp ak bopp la ko wër la ca nekk waaye wattu biir ak la ca nekk wal batn wama hawa biir ak la mu ëmb ban ñetteel moo lay dimbali wal tazkurul mawta wal balwa ngay fàttaliku bis bu nekk dee ak musiba ya nekk ci ginnaaw dee mbokk yi foo ñu góorgóorlu fàttaliku dee ak la ca nekk wa man arada al axira taraka zinata dunya fa man faala zalika faqad istahya min allahi xaq alxaya soo bëggee jëriñu da ngay bàyyi àdduna ak la ci nekk nga dellu ci yàlla tabaraka wa taala nga rus yàlla dëgg-dëgg rus lii mooy rus yàlla hadis ba imaamul albani wéral na ko mu ne waaye nit bu yàlla dindee ci moom kersa dootul faale lu muy wax dootul faale lu muy xool dootul faale lu muy dégg dootul faale lu muy lekk dootul faale lu muy sol dootul faale lu muy naan wala tey fii nu nekk nii jigéen ñi lan la ñuy sol nit ñi lan la ñuy dunde lan lu tax parce que meru yàlla tabaraka wa la koy wàcce ñàkk a kersa yàlla tabaraka wa la koy def mooy adamul xawf moo tax ne lekk alal ju araam li njëkk li muy def mooy adamul xawf wal xayaa min allah ñàkk a ragal yàlla ak ñàkk koo rus lool lay def ñaareel bi ci li muy def moom ut alal ju araam mooy alxirs alal maksabi sharia bokk na ci sababi mooy xër foqale pour gaaw a alal ku jóg rek alal ku jóg rek alal léegi lay seetaan enquête impossible benn xale bu jigéen boo xam ne amoon avenir ci jàng amoon avenir classe yi da koy rajaxee dem dugg ci benn réseau cagatu réseau drogue ñu jugal ko ci caga léegi mënatul am drogue day dem jaay boppam pour drogué wu ba mujj dañ ko dóor bal mu dee dañ ko rey da pare sànni ko ci benn mbalk 17 17 ans xale bi 17 ans la keneen ki 15 ans la am même personne moo leen rey benn nit benn nit moo leen rey léegi lu tax ndax nit ñi àddina bi tey fuñ ñu toll ko wax rek mu ne damay am tey jii Sénégal lan moo tax ngeen gis sénégalais ñu leen di rey Europe parce que démb dégg naa am na ku ñu rey Espagne lu tax jàngi alxuraan ah daa demoon jàngi alxuraan daa demoon jàngi diine l'islam la moo tax nit ñi dugg ci gaal yi dañuy ziare ji yonent bi dañuy dem ci Kaaba ah, ngi nii lu tax nit ci ka ak oto eh, kii gaal yi dem Makka wallahi wallahi suñ tegoon fii léegi benn billet Makka suñ tegoon fii cent billet Makka cent billet Makka cent ñu teg benn billet Amérique ñu ne njëkkante leen ban mooy njëkk a dem fii laa fii taabal bu weex bii bii fii bii Amérique bi la ñuy njëkk a jël bii Màkka bi bii ndax àdduna mooy sunu problème àdduna àdduna nan la ñuy def ba am alal koo gis léegi loolu lay loolu lay xiintoo àdduna naka laay def rek tey ba ba ah, ba xaalis nekk ak man allahu akbar dañuy bañ sax dirhamuka yarhamuka fi kulli zamanin wa makaan di ko wutal ay terme boo xee sax ñu waa ci la bokk de ndax mooy tax jaamu yàlla gi ne jaamu yàlla gi moom nit bu amul ah fekke ko koy wax dara la ci faalewul ci yàlla alal la ma ko yiteel mais du yàlla bu doon alal suñu amee alal suñu diine baax lu tax suñu diine jagut kon du alal bi mbokk julit yi ndeke kon war nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ne alal ju araam day alak doomu aadama yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci hadisu ibnu mas'ud mu ne laysa min amalin yuqarribu min aljanna illa qad amartukum bih wala amalun yuqarribu min annar illa qad nahaytukum anhu fala yastanbitanna ahadukum rizqahu fa inna jibril alqa fi raw'i anna ahadan minkum lan yaxruj min addunya hatta yastakmila rizqahu kon fattaqullah ayyuha nnas wajmilu fi talab Yonent bi saa salaam nee na amul lenn lu baax loo xam ne bu ngeen ko defee dugg àjjana lu dul jàngal naa leen ko wan naa leen ko bàyyi ma fi dara loo xam ne su ngeen ko defee dugg aljanna lu dul jàngal naa leen ko amul lenn loo xam ne bu ngeen ko defee dugg safara lu dul soril naa leen ko mu ne kon li fi nekk ragal leen yàlla da ngeen yëg ne jibril dee na ma ne kenn ci yéen du génn àdduna lu dul li war a am dina ko am kenn ci ñun du génn àdduna lu dul li yàlla rëdd ci jëwam bii ne lii lay am loolu lay am kon nag ragal leen yàlla ci utin wi maadaama yow li nga war a am yàlla rëdd na ko ci yow dañu laaj kenn ci salafi yi ne yow doo njëkkante doo kër kër yi doo mu lu ma koy dee li ma yàlla jox ci wërsëg njëkkante du tax mu ñëw yéex du tax mu ñëw yàlla jox na moo ko pare su ma defee ndànk mu ñëw su ma mu ñëw suma ma gaawee mu ñëw kon ndànk lay def xoolal ñun est-ce que gëm nañ loolu ñun dañoo gëm ne ku demul da ngay dégg sax termi yi alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori ñeen ñu ne barsa wala Barzak waaw léegi fan lañ jëm mbokk yi alxirs alal maksabi sariya loolu moo loolu dafa bokk ci asbaab muy xër di gaawtu ci alal ju bari ju gaaw na gaaw rek na gaaw moo tax gis nga léegi réseau carte yi réseau jaay sa bopp réseau góor jigéen réseau franc-maçonnerie pour rek gaaw am alal ngay dëkkal nit ñetti weer mu ñëw daaneel këram di dawal 4 x boo xam ne tabax benn air plus boo xam ne nga ne déet mu taxu fu ko jëlee alal ju gaaw ñenn ñi lal moo tax ñuy sàcc xale yi di leen rey lan moo tax ñuy sàcc xale yi Sénégal di leen rey sept ans trois ans ba sept ans lu tax alal nguur daraja bëgg siiw ah bëgg am alal lu tax ñuy sulli néew yi xërëm bëgg alal da dégg boo li nga yor nii lii boo ci reyee juróom-ñaari nit da ngay alal nga yor ko nekk ci dëkk bi di reyaate jëm ndax bëgg alal lii boo ci reyee nangamu ni da ngay falu da ngay gouverner lii boo ci defee nangam xoola am na ay maire yoo xam ne ci koñ yi ay we yor wee bu ñu reyee ay liir tant liir dañuy am alal yenn saa yi nga dégg ñu ne benn xale caddi caddi ci koñ ñu ne la dawal ci maire bi mu abal la wee nga naanal ko ko nga ñëw def ko ci ndox suy ko ci xale bi xale bi commencé xippili ko ba pare ñu ne gëm nañu yàlla koo wax mu ne laa laa ilaha illallah mooy jullitu billaay Sénégal ñooy jullitu billaay xam nga dafa am mbasin billaay da ngay fekk jaaykat bi ci marché ba muy jaay mbasin nga ne ko yow est-ce que lii mbasin la mu ne la billaay la xam nga lu ñu naan billaay la du mbasin mooy jullitu billaay balaa ngay xam ne kii jullit la mu ne billaay yonent bi nee na ragal leen yàlla ngeen ut ni ngeen di ute ngeen rafetal ni ngeen di utee kenn ci yéen du dee lu dul li war a am dina ko am kenn ci ñun bu mu dem di mooy yàlla ndax am alal waaw kenn ci ñun ñëw na ci hadis abi said anna aksar ma axaafu alaykum ma yuxriju llahu lakum min barakati l ard qiila wa ma barakatu l ard qaala zahratu dunia anti bi alayhi salatu salaam nee na li ma gën a ragal ci yéen mooy barke bi yàlla di génne ci suuf si gaa yi ne ko loolu ban barke mu ne mooy poñetu àdduna bii ngeen di topp ndeysaan di dajale rek da ngay dégg waa ji mu ngay dajale am na nangam am na ay kër am na ay terrain am na ay oto am na am na am na am na am na am na am na après mu dee ana li maamoon anamu nga bàyyi ko fi dem léegi nag dajale nga ko bàyyi ko fi dañ la ci atta yowmal qiyaamati moo tax yonent bi ba mu nekkee ci sukuraat mu xëm ximil ko mu ne Aysa ana li ma fi bàyyi woon Aysa ne ko moo ngi nii mu ne ko nañ ko saraxe ñaata la mu ne ko juróom benn dërëm ne ko Aysa nañ ko saraxe Aysa ne waaw mu xamaat ximil ko mu ne anamu mu ne kër gi dara dafee nekkul mu ne ko yéen yéen ay mbokk Yusuf yi nañ saraxe lii ñu daal di koy saraxe moo tax bàyyiwu fi dara moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent daana toog weer cin du tàkk këram weer cin du tàkk këram weer fii kan mooy toog ñeenti fan sa kër amul sax fonde xanaa loo alko alko sax di nga même boo amuloo loo lekk sax nga am 100 francs nga ne e booy jëlal bool bi nga jàdd ci meer bi jëndal ma foofu fonde yéen di daan toog weer cin du tàkk këram sallallahu alayhi sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ne Muaz moo ko solo mu ne lan yazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusal an arba an jasadihi fi ma abla wa an umrihi fi ma afna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg bu nit ne cëpp yawmal qiyaam danañ la laaj ñeenti mbir yaram bi ci la an jasadihi fi ma abla sa yaram bi ci loo ko rappal sa dund gi ci loo ko jeexal sa alal foo ko jële ak foo ko dugal sa xam-xam bi loo ci liggéeyal yàlla wala alal ji ñaar question la boole bi mu ne dund an umrihi fii ma afna dund gi foo ko jeexal wa an shababihi fii ma abla sa jeunesse foo ko sànq waaye ba mu ñëwee ci alal mu ne dañ laaj foo ko jële ak fooko dugal ba mu ci xam-xam mu ne dañ laaj loo ci liggéeyal yàlla gis ngeen alal kon nu mu grave te ñun moom la ñu xontoo waaw nit ki moom na dem nekk góor jigéen non na tabax seen kër rek garaaw la ah. non garaawul après dama yóbbu sama papa ak sama yaay màkka rek buñ ma ñaanalee baax na après nga nekk ci lu bon wala après bu ma paree ma tuub waa ji dafa nekk ci koñ bi bëgg a dem Italie mënul dem mu dem dajji jàkka ji sàcc tapi moket yi ak rajo yeeg tout mu jaay ko motali paasam dem tukki ba mu ba yàgg ba commencé liggéey ba affaire yi baax mu daal di yónnee paay xaalis ne leen jëndaal leen ay moquette ak rajo maa sàccoon bagage yi est que loolu dagan na est-ce que loolu mu def dagan na est-ce que yaakaar na ne remboursé na fay na est-ce que yaakaar na ne loolu yàlla baal na ko jeex na loolu mooy suñu problème mbokk yi ku am xel mooy ku jëfandikoo xelam ma gaaw ci troisième pond bi euh, tomb bi mooy at tamu wa adamul qanaa mooy bëgge ak ñàkk a doylu sabab yi tax ñuy dunde lu araam ñetteel tomb bi mooy at tamu wa adamul qanaa bëgge ak lan ak ñàkk doylu li nga am bañ laa doy waa ji romb la rek nga gis ko rek nga ne kii lu muy liggéey ba mu mel nii ñu ne la góor jigéen la nga ne ah lamfata tekki na de nga commencé fréquenté waa ji pour nga mel ni moom kii lu muy liggéey nangam kii lu def pour nga pour nga am li mu am. xalaatoo bakkaar yi ko ciy fekk ëllëg yow mal qiyaam xalaatoo alal ji day dee bàyyi ko fi xalaatoo ne li muy nekk sobe la yow dee dee sa nekk ci ma tënk tomb yi ci mu ndax ñu gañ a heure mbokk yi ñeenteel bi mooy aljahl bi xutuur kasbil xaraam wa hukmu mooy réere danger bi nekk ci dundeelu araam ak atte bi loolu moo tax nit ñi tey Sénégal kenn faalewul dara parce que kenn xamul danger bi ci nekk dañ ko de kenn ci ñun faalewul ëllëg yowmal qiyaam sa biir bàmmeel ëllëg sa kanamu yàlla lii nga doon def danger bi ci nekk kenn ci ñun du ko faale sa yoon du ci nekk man daal naa naa am rek su ñëwee ci beneen tomb bi mooy adraar kasbul xaraam lor yi nga xam ne moom la alal ju araam di lor nit foofu lafa fa jiitu mooy zulmatul qabr lëndëmu bàmmeel sooy lekk lu araam boo duggee bàmmeel rek xam zulmatul wa kaslul jawaari an taatillah ñaareel bi mooy sa cër yi dootuñu sawar jaamu yàlla booy lekkelu araam boo déggee noddu dangay mel ne ku dégg ay sawar bu nit ñi di jàng alxuraan da ngay mel na ku déglu ay sabar yi riir sa cër yi ñooy tayal jaamu yàlla jamais nga julleeti waxtu jamais nga defati lu baax. gis ngeen tomb bu njëkk bi ci lor yi lekk lu araam di def mooy lan sa bàmmeel day lëndëm yowmal qiyaam waaye sa cër yi day lot ci jaamu yàlla tabaaraka wa taala mbokk yi lii bu doon benn tomb bi rek doy na bu doon benn bi kese. kese doy na ñaareel ci lor yi nga xam ne lekklu lu araam def koy def mooy gadabul jabbaar wa duxulu naar yàlla da lay merete safara nga jëm booy lekk araam gadabul jabbaar wa duxulu naar yàlla da lay mere te safara nga jëm jëlee nañ ci abu umaama mu ne yonent bi alayhi salaatu na képp koo xam ne da ngaa jël alalu jàmbur na nga yëg ne dooñu jox la mbir ma na nga yëg ne safara lañ la jox safara ngay lekk lan la yàlla wax ci ñi lekk alalu jërim ci alquran innama yàkuna fi butunihim naaran ñii lekk alal ju araam di lekk alalu jërim yàlla mu ne ñii safara la ñuy lekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na marat bi qawmin romb na ay nit laylata usra bi guddi gañ ma rañaanee butunahum mislal buyuti daxma seen biir yaa ngi tol ni ay néeg borom biir bu toll ni néeg lan la lekk ñooñu kullama araadu an yaqumu saqatu saa ñu bëggee jóg daanu ndax biir yu saa ñu bëggee jog daanu ci suuf yonente bi nee na ma tiit ma ni jibril man haula mu ne haula allazina yaakuluna riba min ummatik ñii ñoo ñi doon lekk riba ci sa xeet mbokki jullit kon ñu bàyyi xel bu baax li ñuy dund ñu bañ a dund dund waa Sénégal ñu dund dund diine dañu bëgg ëllëg ñu am ngërëmal yàlla ñetteel mooy adamul qubulu du'a kuy lekk lu araam boo boo yëkkatee sa loxo yàlla di ko nangu dañuy tëj asamaan yi kenn du la nangul lool jàngeen xadis bi ci arbona nawawi waa ji nga xam ne dafa dox dox bu yàgg ba kawar gi cuqaaral yaram bi poussière yére yi tilim mu yëkkati ay loxo naan yaa rab yaa rab yaa rab yonent bi ne fa lu tax akluhu wa mat'amuhu wa malbasuhu wa husiya bil haram li mu lekk dafa aram li muy naan dafa aram li mu sol dafa aram li ko wër dafa aram ñoo ne fa anna yustajabu law naka la ko yàlla di nango kuy lekk lu aram boo ñaane yàlla du may Saad ibnu Abi Waqas radiyallahu yaayam da ko ne Saad benn doom nga ci man génnal ci lislaam mu yaay ji ne ko ci naaj bee laay tëdd ba dee rek yaay ji lal basang bi tëdd saat daw ci yonent bi ne yonent man dama bëgg sama yaay te ma ngi ne ca naaj ba dana dee yonent bi ne ko lan la mu ne ko ne ma génn ci lislaam wala mu dee yonent bi ko see léegi saat nag lu ci solution mu ne yonent ñaanal ma sama yaay tuub yonent bi yëkkati loxo yi loxo yi nga xam ne musta ñaan lu aram musta ñaan lu bon mu ne hadi umma saada yàlla yal na nga jubal yaayu saad yàlla yal na nga jubal yaayu saad yow yàlla yal na nga jubal yaayu saad saad daw ubbi buntu kër gi rek yaay ji jóg toog daan ne saad ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna rasulullah rek saad dëppaat demi tour dawaat egg ci yonent bi ne yonent sama yaay tuub na waaye nag yonent des na de mu ne ko des mu ne nii ma gisee nga ñaan yàlla may la man ñaanal ma suma ñaane ñaanee yàlla may ma yonent na ko saat mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ne ko da ngaa bëgg boo ñaanee yàlla may la mu ne ko naam mu ne ko atib mataamaka li ngay lekk na dagan sooy lekk lu dagan booy ñaan yàlla yàlla di la may li ngay lekk na dagan soo ñaanee yàlla yàlla may la waaye booy ne booy lekk lu araam boo ñaanee yàlla du la may waaja fekkoon garab ga nit ñi di ci mooy yàlla mu ne day daaneel garab gàddu jaas yi ñëw bi ko iblis séenee muy ñëw rek iblis ñëw taxaw nekk nit foo jëm yow mu ne ko garab gi laay daaneel mu ne ko garab gi ba nga laal ko ñoom ñaar ñu roofoo waa ji yenu kaw dóor ci suuf toog ci kawam iblis ne ko oh, ah yow bëri nga doole de waa léegi d'accord xam naa ne yaa ma mën mais léegi kaay ñu am nuñ def te nga bàyyi garab gi mu ne ko lu ñuy def mu ne ko saa yoo xëyee di nga fekk 1000 francs sa suufu njaganaay te xam nga yow da ngaa njaboot sa dépasse bëriwul nga dimbali kooku mu ne ko est-ce que na mu ne ko nañ ko essayé suba waa ji daal di yëkkati jaasi ji dugal ci mbaram dellu këram fajar jot mu yëkkati gis 1000 francs mu ne waa ji wax na dëgg de mu lekk ci 1000 francs yi ba doyal ay jour ba iblis xam ne kii lekk na lu araam ka mayoon doole génn na ci moom iblis gàddu jaasi ji iblis bañ a indi 1000 francs yi mu yëkkati gisul dara rek mu gàddu jaasi ji tërëx tërëx iblis ñëw taxaw ci garab bi wéeru ne ko yow foo jëm yow mu ne ko garab gi mu ne ko ba nga laal garab gi ñoom ñaar ñu roofoo iblis yenn ko ba ci kaw ne ko rëll ci suuf toog ci put gi mu ne ko sawaay lu tax nga daaneel ma mu ne ko 1000 francs yee tax bu njëkk ba yàllaa taxoon mais bii yow 1000 francs moo la indi yàlla indiw la saa yi lekk lu aram perte nga soo amoon déw néew nga doole boo amoon sécurité ci wuññeeku nga amatoo kóolute ci yàlla tabaraka wa taala moo tax lekk lu dagan nit def ci war a rey boppam góorgóorlu mbokki jullit yi dafa wér ay textes yu dul jeex ci ay nit yoo xamante ne ba ñu lekkee lu dagan nan lañ def yàlla waaye am na ci ñoo xam ne ba ñu lekkee lu araam lañ moo mujj ci ñoom ixwatal imaan kon adraar lor yi nga xam ne lekk lu araam daf koy def wax naa leen ko mooy lëndamu xol lëndamu bàmmeel ay cër yu tayal ci jaamu yàlla meru yàlla ak dugg safara waaye ñàkka nangu ñaan booy ñaan ba nga sonn yàlla du la nangul kon ma tënk noonu waxtaan wi ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal def ci ñun dégg ak topp maa ngi jégalu kàddu yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi